fi ñu toog nag ñu ngi biir jàmm gën tablo xaadim a ngi nii buñ ñu nee nag mooy ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba rasul ñuy waajal nag ubbite sax masaalikul jinaan ndax olof ne na nag lu def waxu lu ay di njàmbat te loolu am ci mois de septembre ki toogal ku ne xam na ko digganteem ak sëñ bi mais ku ne xam na ko tamit ci li muy yëngu muy làmb ay nitam a ngi nii toog ñoom Abdou Seck Abou Niasse Thiatou Fora Elas ak Tafa bu ma limee dinaa juuma gaa yëpp ngi ni toog man nag mu demoon états ñibbi si tey ñëw ci réew mi dellusiwaat fii Jolof maa ngi lay bëggee champion di la wax ne que dalal ak jàmm ci réew mi di Sénégal. ak sa charité Baye Fall eh, di wax ne jërëjëf borom tuba jër jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sant ñëpp di sant ñëpp di sant samay xarit di sant sumay waajur di sant suma sëriñ sëriñ Sidi Mbacke Alxuraan eh, amaana foofu laa deboon nii ci gàlle yi nii di nuyoo baalu waaw ndax ñun fii lañ am. fii lañ am fii lañ jógee te fii lañ fier chaque jour ak lu ñu mën a doon nag mais nag yàlla mën nañu def lu nekk si ñun la si suñu gëm-gëm la mais du teye ñu doon ku ñu war a doon fii lañ juddoo fii lañ fier te ñii lañ am ñi ñooy samay xarit yàlla defu ko ñeneen ñii la ko def waaw am na solo comme eh, eh. ah, mais tey su ñëwee fii fekk la ci secteur bu mel nii parce que tamit ku ne xam na ne Siteu ki mu doon tey li muy représenté ci Sénégal rawatina li muy liggéey li làmba mais terewul muy dund ak ñi nga xam ne nii ñoom nga fondool ci même koñ bi même kii bi loolu maanaam ban loo ciy jàngal nit ñi lu tax loolu Siteu di dund loolu ba tey. waaw dund bi dafa yomb pour man li tax mu yomb mooy nit mun nga am maxaama bu nekk mun ngaa doon lu nekk mm-hmm. mais munoo Eh, te munoo wax wax wax wax wax ba ki la war a jur juru la eh, te yàlla tamit munoo wax ba du la boole ki nga xamante ne moom nga fondoor mën naa xam ku nekk xam naa ku nekk am na xarit bu nekk mais gënu rëy ñi yee eh, ndax ñi démb la woon ñi man ak ñoom seen dërëm seen ñett dërëm laa doon dundee ba nii ma toll yee man ak ñoom góor jàpp ci góor ba góor yeeg fa mu jëm la <laughs> am na yee ah, ah? loolu dong la woon waaw léegi nag dinaa ñëw ci làmb ji parce que tamit mbërum làmb nga macha allah bokk ci ñuy waa làmb yi yaakaar ëllëg. année balance ci làmb est-ce que loolu jaadu na. waaw def naa année balance fii ci Ndakaaru yaa ngi dégg. ci Sénégal waaw si Sénégal. ok mais maa ngi pratiquer maa ngi def MMA. foofu dinañ fa ñëw MMA man kay li tax nga def année balance fii moom a jaaxal moo jaaxal tamit waa làmb. waaw jaaxalul kenn. Ah, lu non non warul jaaxal kenn du Siteu kese. te nekkul c'est la première fois ni ku nekk jaar na fi. àdduna dafa am lu ma doon wax chaque jour. ni ku si nekk sa dessin rek ngay def li nga war a def ngay def li nga war a am ngay am te kenn ku ci nekk yàlla def na si yow li nga xamante ne nit mënu ci dara. yee na ci nit ñi fier yaa ngi dégg. fii Siteu kese nekku fi yàgg naa ko wax nee naa leen man mosuma am ndam bu tiitaroo ndax dafa am lu jiitu si man muy Serigne Touba. caam nag bu xeebu la ma dara dafa am loo xamante ne dafa nekk si ñun nekk si doomu aadama yi yooyu yàlla boole loolu muy lii fii kenn defalul sa morom dara Siteu defalul kenn mais lii dafa yàgg dafa nekk loo xamante ne cër la yee Siteu di nekk loo xamante ne lu mu leen jox ñoom ñu joxaan ma ko yee loolu moo waral lii. loolu waral lii daal. damay ñëw parce que MMA bi moom fa laay mujjee yaa ngi dégg donte moo ñu fendi mais damay ñëw ci loo xam ne nit ñi dañ ko waxoon muy sa digganteeg Ama Baldé coow li bëri ci taxaw na taxawul dina taxaw du taxaw ba far yàlla def sa digganteeg Papa Sow sa digganteeg Garga Mbossé ñetti combat yooyu ma jëkk ci Ama ma ci mën a wax moo ko teree taxaw ba far bu bëriw ngeen saison bi jeex ni non moom mënuma wax si loolu benn ñaareel maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp te maa ngi leen di invité dama am combat da nga am combat. te li koom am com combat bi ma loolu nekkul lu ndaw. boobu kay man yow laa faral. waaw Sénégal yëpp yow lañ faral. xamul lu tax ñu war ma faral. xamul lu tax ñu war ma faral. yee man dama am sama gëm-gëm dama am sama yaqim gëm di jéem di ñaan si suñu borom mu may woon yoon yaa ngi dégg. Mm-hmm. te man li may jéem di kay def dafa nekk loo xamante ne yee pour man. yëfu ñëpp la pour man ñëpp ko war a defi ku ko deful tey di ko def suba. MMA bi mais MMA boobu comme ba nangu woo wax ci loolu MMA bi lan moo la ci dugal Siteu dafa jàng xeexu MMA ba xëy dugg ci MMA ak lu la motiver ba nga dem dugg ci MMA. non MMA jànguma ko. MMA ah, ba pare nga bëgg ko pratiquer. non mais mais ko yàgg pratiquer te kenn fayu ma. fii ci ndax boo ma tooñee si mbedd ma xeex ci gratuite. Ah. yaa ngi mais dama la bëgg a xamal. benn affaire MMA dafa nekk sport boo xamante ne ñun lu ñu am ñun mbër ñun Sénégal moo gën a puissance muy bëre. xam nga xam nga tax ma gën a puissance. soo gis ku dem ba am vingt cinq ans wala trente ans di jàng bëre. waaw loolu de am loolu de bëriwul moom. waaw du ko mën. Mm-hmm. ndax lan. parce que du at yaay tax wala yu mel noonu. da nga koy foowee ba ngay nekk xale. sa yaram nangu ko. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. léegi MMA. sport yi si am yëpp. bu dee judo mun nga ko dem jàngee. yaa ngi dégg bu dee muy taay mun nga ko jàng yaa ngi dégg bu dee dijitu mun nga ko jàng genre bari la bu nekk suuf te loolu bëri sax moo ko gën a moo ko moo man pour man bëri moo ko gën a complet yaa ngi dégg ndax man am naa course boobu mais course bi li muy def xaaj bi yëpp bari la léegi nag lan moo tax ñun suñu bëri bu ñu am war ñu ko mën a dem jaay ko international gëm-gëm boobu il faut mu nekk si ñun yow loolu la motivé yow yee non loolu moo ma loolu moo ma yàgg a motivé depuis ma nekk booy man mosuma man mosuma toll ni mbër samay xarit yëpp laaj la ñu ngi mais dama yàgg am gëm-gëm yàgg am yaqin yaa ngi dégg bu nit ñi ne day baax dama jàpp ne baax bu nit ñi waxul day baax dama jàpp ne day baax ndax loolu moom laay dund. yaa ngi dégg MMA bi nag sport la ñu boole. yee ñu dem jëm ko xool nan lañ koy pratiquer. loolu lañ boole yow yow judo boobu nga wax ak xawma ban bi nga ci wax yooyu jàng nga ko. maa ngi jàng maa ngi jàng Muay Thai. Muay maa ngi jàng Muay maa ngi jàng am naa course boxe. Mhm. maa ngi jàng dijitu ñetti course yooyu am naa ko te maa ngi pratiquer maa ngi def lépp. yaa ngi dégg. waaw mais na ñëpp suivre na ko ñëpp bàyyi xel dem defi ko. mais di jàng pareegu jël combat. xam nga xam nga kañ laa jëkk xam nga kañ laa njëkk jël combat. Hmm. man dama commencé pratiquer une semaine ñu jox ma combat suma premier combat. nga nga jongante ko. ma jongante ko yàlla may ma si ndam. Ah. yaa ngi dégg te awma ma expérience boobu mais dama gëm ne man sañ-sañ bi may teg ci làmb bu ma ko tegee damay am li ma bëgg te bi ma ko tegee dama am li ma bëgg. foofu nu ñu lay joxe victoire ak nooy gagné. non foofu victoire nu ñu la koy joxee mooy xeexu MMA day am cinq rounds. ok cinq minutes moo gën a métti bëri foofu mais cinq rounds ni mhm. su fekkee ne da nga am kaawoo. su fekkee ne da nga kaawoo nit ki wala nga toll ko foo xamante ne. yooyu yaa ngi foo xam ne danger la hmm. dañuy arrêté combat dañu lay jox victoire wala nit ki boo ko dóoree mu kaaw nga yegg si waat xam nga ku kaaw moom boo yegg see ci kawam di ko dóor hmm. daanaka nit ki àndul ak sagoom ah, dañuy arrêté combat bi yow yaa gagné yee man sama combat bi passé noonu laa ko gagné kaw nga ko gagné yee noonu laa ko gagné mais lii nekk si MMA li nekk si te hmm. dafa bari ndax gars yi seen i tànk ñoo dangereux yaa ngi dégg yow léegi yow boo nekkee mbër mën a bëree gis koo xamee ay tànkam dafa dangereux yow da ngay dem jàngi tànk ngay pratiquer man mën naa la ne maa ngi koy pratiquer maa ngi koy jàng mais fi ma ci war a toll tollaguma ko mais dama gëm li ma am dama gëm samay loxo dama gëm sama xam-xam dama gëm sama sañ-sañ. maanaam li sa réew daal dama ko gëm dama ko gëm loolu laa man damay pratiquer chaque jour ñoom li ñuy def. loolu laay pratiquer chaque jour. mais bu ma meree li ma li ma gëm laay génne de. moom ngay génne waaw waaw loolu laay génne. <laughs> ki nga dajel ñaata kilo la doon posé. ki ma dajal kañ. ki nga gagné nii. ki ma gañee kooku moom moo ma gën a diis mu ngi def ay mu ngi doon def ay cent ay cent ay cent vingt. ay cent vingt yooyu lay def. nga jóge ci yaat keneen ki nga jël nii mooy kan ak nu mu tudd ak fan la dëkk. no ki ma jël américain la. États-Unis boobu la dëkk. États-Unis la dëkk. xam nga ko. non xawuma ko moom tamit xamuma. yaa ngi dégg te loolu wóor na. ah mais affaire bi yow gis nga nit. yow Fall sa liggéey bi fi nga jógee sori na de naaj bi tàng na de. moom kay ci soo ba tey maa ngi lay lijjanti. mais nag Siteu donc yow yaa ngi jël Siteu mais gis nga ne sa liggéey la. waaw yow boo demoon ñu ne waaye moo la su waaye ngay jël loo xamante ne yóbbu la avancé la doo ko def. lu dëgg waaw loolu mooy sañ-sañ si doomu aadama. ñun il faut ñu am gëm-gëm boobu il faut ñu am yaqin boobu si ñun. il faut ñu xam ñun boo balaa nga xam ne ñun dañoo rëy balaa nga xam ne ñun dañoo rëy wala nit ñi dañoo gëm nga jóge fii dem beneen réew boo doxee ñu xool la boo doxee dañuy xam ne dëkkoo fii kon loolu la la yàlla defal na nga ko xeeb ah, da ngay nekk say junni doomu aadama ñu xam ne yow da nga différent ñi bu xeeb loolu cër la moom waaw kon loolu cër boobu noonu boo ko amee da nga koy delloo suñu borom doylu ko moom mu jàppale la nga dem yaa ngi dégg mm. yee affaire bi loolu kese la di ñaan yàlla aussi tamit yàlla yóbbu ma ci le 28 la aussi tamit li tax ma ñëw fii dama ànd ak samay course lan moo la indi Sénégal. li may indi Sénégal mooy bëgg sama réew. wane ne dama fi am mbooloo. wane ne nit ñi dañ seer na ko yow am ngay nit. kan man loolu ngay laaj. loolu kay moom laa wax moom nga koy wan ñun moom ndax Siteu am na nit fii Sénégal mooy géej gi na lañ may wooye man yàlla min lañ may wooye borom kër gi yàlla boo ko waxee séréer mu xam ne mooy borom dëkk bi bu ma ñëwee rek ñu xam ne ñëw naa yaa waaw mais xama xama xama li am solo mooy uh-huh. message bi may lancé rek mooy mbër yi yee nañ ubbi seen xel yi mm-hmm. ubbi seen xel yi nag nekkul ne yee ubbi naa sama xel non non nga jéem a def dara. maanaam percé leneen ci àddina bi lu bokkul ak bëri bi kese. xam tax ñun làmb loolu moo nekk suñu culture bi gën a rëy. mais nañ ko jaay international bro. waaw am na ci solo. yaa ngi dégg boo demee Sinwaa yi wala nga dem ñi nga xamante ne te ne tey fa lañ dëkk ay yeneen dëkk la ñuy dëkk. wala nga gis ay naar ay nigérien wala nga xool ganayen yi ñoo jël champion du monde champion du monde ñoom ñoo ko yor. yaa ngi dégg te ñooñu ay africain lañ comme ñun. yaa ngi dégg ñooñu mënuñu bëree mais ñooñu seen seen seen deretu maam la ñuy génnee wala ne ñoom ay nit ku ñuul lañ comprendre nga yee man fële du ma sax wax ak ñoom man ñi may àndal entraînement ak ñi ma nekkal entraînement xaw ma leen dañ naan man damay fas sama kanam man leen man mënu ma communiquer ak yéen aw ma sama temps bi may yàq si yéen di leen wax wala ma leen di topp may yàq ko pratiquer comme ni ngeen di def. wut loo xam yee sàcc seen système mhm. seen système laay sàcc. jéem ko indi suñu dëkk yaa ngi dégg te man li may def. nekkul ne dama koy def pour juste pour man damay xool lan mooy njariñu dëkk bi tey ñaata mbër ñoo fi nekk. bari na de. ñaata licencié ñoo fi nekk. bari na lool ñaase mi day mobiliser. est-ce que promoteur nañ ko fay liyam cëram. Caatu Fora noonu am na yeneen i mbër ay ñi dëkk Pikine ñi dëkk Guédiawaye yeneen i booy te mosuñu jariñu si làmb te làmb moo tax ñu bàyyi seen lépp léegi ba kañ te làmb ñi si tedd ay juróomi personne ay site ngay dégg ay kii. yee man dama jéem a xooli leneen pour indi ko fii sama dëkk. pour gars yi mën cee tedd ñoom it ñu nekk si ginnaaw yeneen booy affaire ñu jariñu si. wax nga dëgg xel la. barke alxuraan loolu laay rebe te instant bii nii dama bëgg Sénégal ñëpp ñu ñaanal ma centre bii may jéem a xeex nii. bu ma ko gañee suñu soxlaa seen ceinture fii lañ koy xeexee. ci réew mi ci réew mi te su boobaa. dinañ dinañ tëkkal yeneen mbër yeneen mbër dañ si bëre yu dëgg yenen saat. yee ñu ñëwul jariñu si lekk si xaalis ëllëg ñu demal seen bopp. am na solo léegi da nga da ngay def open press dégg naa. yee damay def open press. foo koy defee ak kañ la. stade Mbao laa koy defee invité ñëpp moo tax ma bàyyi sama bàyyi fi ma ko doon defee fii. pour defee ko stade Mbao invité naa mu bëri yëpp surtout bëriwul mbër yëpp laa invité bëgguma tudd kii bàyyi xale bu ndaw bi ñëpp képp koo xamante ne am nga jot sa jot may la la pour nga ñëw invité naa la comme ni ko Thiatou Fora waxee sànq yaa képp ku ñëwul tamit ñu xam ne anyway sa jot moo la ko mayul mais ñu ngi lay bëggee foo mun a nekk mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. loolu moo nekk li nga xamante ne mooy message bi nga xam ne moom laay lancé mm-hmm. waaw. ci côté kase foofu moog làmb ji fii fu gën a duun. bokkul sax macha allah. kon de xanaa la nga fayeeku fële moom baax na. macha allah sax ndax xamu lu tax. taala man dinaa defee MMA de. lu tax xamuñu ma ñoom xamuñu ma 100 pour cent xamuñu ma 100 pour cent mais maa ngi tedd maa ngi sant yaa ngi dégg tey sama première combat bi ma xeex. yee sama taay xëy na sama poids moo ma may ma xeex ñi ma xeexal. yee mais bi ma fa jógee mais grand combat lañ ma jox. Hmm. ceinture laa war a xeex. ceinture ngay jongante. waaw ceinture laay jongante te dama bëgg. yee eh, képp koo xamante ne rek yaa ngi dégg sama message bi nga ñaanal ma xeebu ma kenn. boobu kas bi su yegg na cent millions. no mënu ma wax si loolu mais licence maa ngi sant. moo kaso bi nga mujj bëri fii fu ëpp. non maa ngi sant daal xaalis bi fi bëri na fële bëri na lépp baax na. mais mais bële daa mel ni moo gën a dund dégg naa de. maa ngi sant bu baax. ñun ñëpp a ngi sant ka eh, ñu ngi sant loolu moo loolu nag moo jar a ñaan ndax xam nga lu tax yee eh, ñun loolu mooy suñu fitir loolu mooy li nga xamante ne mooy suñu mbégte ëllëg yaa ngi dégg jéem a bàyyi di xiiroo ñun suñu biir nii ndax xam tax chaque jour ngeen ne mbëri mbari mbari mbëri te mbëri buñ bëriwul laamu doo am ah mbëri buñ bëriwul xaalis am te mbëri ñoo nekk ñoo xamante ne tey bu ñuy xas mbëri la ñuy xas te léegi promoteur da ngay gis promoteur boo xamante ne jeune am yëpp da ko jàng xaleem yëpp da ko jàng wala xaleem yëpp da koo nekk di ñafe di liggéey di yenu ay affaire di nekk ci ay affaire yoo xamante ne di yenu fii di ba yàlla tetal ko mu am benn fond boo xamante ne mu démarré ko ñëw dugg ci làmb yow tey yow mbër bi nga xamante ne yow bi nga nekk xale ba léegi yaa ngi suivre làmb yow chaque jour cinq heures du matin heure bi ngay jóg amul promoteur bu koy jóg cinq heures du matin ngay jóg di entraîné yaa ngi dégg gàllaañ fu ne nga dem uti ko lu ne nga def ko yaa ngi dégg te yow imaginal tey yow ki nga xamante ne mooy promoteur bi yow imaginez tey bu ñu waxoon cent pour cent yéen yéen mbër yëpp boo leen dajaloo woon yéen yéen ñëpp trente pour cent yi lañ leen sédd soixante pour cent yi promoteur bi moo ko moom. loolu dafa doy waar daa mel ne di kon ci kaw côté. dëgg xam lu tax bu ñu xool mbëri nekk ci kaw wala benn Morlo wala benn Eumeu Sène bi fayeeku nañ xool xale yi nekk si ginnaaw war ñëw. war a am dara. nañu ubbi buntu yi bàyyi naxante bi nañu ubbi buntu yi te bàyyi naxante bi. bàyyi naxante na solo yaa ngi dégg ndax man mënu ma gëm nga ne yow. da nga nekk promoteur wala da nga nekk tëggkatu làmb di tëgg làmb yow chaque jour nga ne génnoo ci chaque jour nga ne avancé woo te yow doo mësa doo mësa sa àdduna nga ne yow bàyyi nga làmb chaque jour si lamb ngay daw. chaque jour yaa ngi ci lamb. laaj ñaa la loolu pour la. doy na waar mais léegi fi may ñëw MMA boobu dañ ciy jeexale parce que gis nañ ko mel ni Bombardier ñu koy nuyu di ko ziar moom muy seen grand frère loo koy wax. waaw di koy remercier rek moom dama koy woo man ñu yëpp man bi ma duggee MMA mbëri mag yëpp dama leen woo laaj leen conseil ñu jox ma conseil yu yee woo Bombardier moom woo ko. Bombardier woo naa man dama woo boo damay wax ak Balla Gaye déggante nañ mu conseil ma ci Modou Lo déggante nañ mu conseil ma ci yee dafa mel ni ñooñu laa dégganteel te ñooñu ñëpp ay conseils yu baax lañ mu si jox te loolu sama fierté la ma wax ko ma dara ndax ñooñu ñooy ñu si làmb te tey imaginer tey ko wax na si déggante naa ñooñu ñu jox ko conseil yu baax la nga naan noonu yaa ngi dégg. Ah, dañ naan est-ce que c'est vrai sax de. waaw mais te loolu yëpp am na yaa ngi dégg mais mbëri dafa de nit ñi ñoo leen di a dafay dof. du ngeen ay dof mbër sax mënta nekkub dof laa foog. mënta nekk dof mbër moom yaakaar junni doomu aadama yow di lay topp am na loo leen wax lu tax nga topp leen. dem nga leen wol leen jàmm wala nga wol leen tawféex. waaw. léegi fi may tëjee nag du mën a ñàkk parce que waa lambit dañuy soxlay xibaar dañ la fay ci combat 35 millions yaak Papa Sow dégg naa nga bañ. yow gis nga àdduna da dul lim gis nga xaalis <laughs> xaalis xam nga dafa am loo xamante ne moo jaaxal ñu bari dafa am ñoo xamante ñoo ba jaaxal ñu bari ñun buñ juddoo lañ commencé am xaalis laay ñuy toog ñu ñëpp. ba da xeebu ma ko xeebu ma dara ci àdduna man xeebu ma doomu aadama xeebu ma am amul doomu aadama. kase biñ la fay. waaw dama la bëgg a xamal man mosuñu ma fay kase mosu ma wax ak promoteur sama mbokk musul wax ak promoteur xamal la moo am ci àdduna. dañ bàyyi waxi xaalis te xool li avancé la nit ñi. mais c'est nag ku la bëgg a tëgg il faut mu wax xaalis parce que il faut mu fay xaalis. waaw mais dëgg lu ma la xaalis moom xaalis si a bëri ah, a journal bi moo xëy bind ne. promoteur bi moo la fay nangam. ci yow nag laa déggee. di Fallou Ndiaye. benn promoteur gis déggoon teewu ma. waxul ak Père Max. mosuma dégg loolu Max ku waxal dina ma ko wax. promoteur waxul ak Max. eh Maxime Bargane sama papa la kooku ko xam moom moo xam man. Hmm. yow Maxime mosuma woo ma Fall man daal maa ngi si combat. combat bi moom ñu ngi la ci ñaanal ndam MMA jooju. dama bëgg yéen ñëpp ñaanal ma ci. moo tax ñu ñëw topp si la ba fii ci naaj wi. xamal lu tax da ngeen ma war a ñaanal ndax xamal lu tax man teewaluma teewaluma sama bopp. sama mi ngay représenté. man kilal bu may xeexee drapeau Sénégal moo ci nekk comprendre nga man drapeau bi buñ ma ko joxee dama ci fier buñ ma ko joxul damay xam ne jox nañ ma ko ñoom ndax xam lu tax ñoom seen jot moo ko matewul yaa ngi dégg te ñoom foo leen fekk ñoom ndamu Sénégal moo leen ñor. autorité yi autorité yi ak gouvernement bi. gis nga nit ñi nañu bàyyi bañ ne ah na ma dama dama may loxo wala ki na ma may loxo yow mayal sa boobu loxo ba pare. maanaam da cay nekk. waa da nga ciy nekk ba pare. ñu mën la caa fekk. ñu mën la si fekk te man gëm naa ne ku nekk na ma ci fekk. yow Babacar. yow Fall man dama gëm sama bopp de. waay loolu loolu moom de si man loolu am na solo. xeebu ma nag benn doomu aadama. mais maanaam nit ñi nañ jóg. doomu aadama yi nañ bàyyi bu ñu ñaxee li ñu xam si ñoom ñax. bu ñu amee nit ñu xam si ñoom am. gis nga taalibe. fa nekk loo xamante ni si doomu aadama. yee bu jiitoo si yow lu ñëw day ñax. Papa Sow Garga bu la gënal. man de sama combat bi le 29 Papa Sow invité naa sama grand boobu garga maa ngi koy invité ah. yaa ngi dégg mbër yëpp. dégg naa da bañ garga de. déglu ma la maa ngi invité ñoom ñëpp nañ ma ñëwal sama open press bi dama bëgg ñoom ñëpp ñu sama open press bi. ah ñoom mbër yëpp. yaa ngi yaa ngi woo Papa Sow. Papa di sama grand. Ah. Papa Sow. Papa jaral na ma xuloo ci mbedd bi wala déglu ma la. jaral na la xuloo. jaral na ma xuloo ci mbedd. ah kon de xanaa war ngeen a lekk 35 millions yi nag xuloo fële biir arène nationale. yéen ñaar. papa daal maa ngi lay invité sama open press nga ñëw. du ngeen defante ci arène ba Siteu dana neex de yaa papa ndaama allah incha allah. loolu dana neex de Siteu. incha allah tarkindaa yi wàcc. yee ñu lay tarkindaa lañ tarkindaa yi moom xam nga expliqué. dajeeg waa Fass yow yow yow xam nga xam nga dafa loo xamante ne. xam nga dafa loo xamante ne ci àdduna. yàlla da ko def. gis nga ñun ñun yàlla dañoo defal loo xamante ne ñun xeebuñu ko. yéen tarkindaa yi waaw. lu leen yàlla defal. yàlla dañoo may li nga xam mooy lañ naan baddi la naa xam nga baddi la naa. tekkil ma ko. waaw xam nga dafa am koo xam ne dañ koo compal. kii dañ koo cofal. kii amul dara. mais ñun dañoo am loo xam ne ñun dañoo nekk ci xolu nit ñi. loolu lañ naan baddi la naa. yow daal doo compalaat da ngay tibbalaate kon yéen. dëgg lu ma la wax man damay xuuf jàll nga naa ma dugg na fii. yaa ngi dégg kon da ngaa bëgg a ma ciy wax mooy. leneen li ma ciy wax mooy. mooy maa ngi sant sama mbokk séeréer yi leyaw fole sereer ɓe mi simna nuun simna nuun leyanuga nu salanam o kin jeeg a refeerna pogum surtout jongwaar fane rime ma andun fof mi talana nuun a ɓay gis nga ma xamal la benn sama combat bële comme sama combat yi may fi fii laa ko laa ko def de hmm. barke alxuraan ni da nga yóbbu butéel waaye yow lépp laa yóbbu te ba pare damay damay damay damay damay génne baax bu bees tax yóbbu ko foofu fecc ko moom la la sa yow yow gis nga fële la américain xamal la nañu def bu ñuy dugg si dañ lay dagal son bi la neex man dama indi géwél teg sawar yi wane jàmm ga laa dëgg wone sama drosil xam nga lu gën garaaw ci àdduna boo demee foofu da nga fay fekk japonais yi dañuy wane lii am siin yaa ngi dégg mhm. gana yeey wane ñoom seen i mboroxeeg seen i affaire ñun bu ñu génnee dañoo war a wane ñun suñu bu curu bu cur mooy ceebu jën bi. waaw kenn mbay bi. loolu kese la. Ah, ak yaasa yeeg ñoom jaajëf ak sa mais dinaa taal balaa ñëw tëj. ah damay nuyu waa jàmm gën fii parce que tamit fii samay mbokk dafay dëkk ah ku mel ni suma papa Baara Sène di papa ñoom Mansour Sène maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa këram yëpp ak Abdou Ngom Pata maa ngi koy nuyu Pata. naan boxo <laughs> boxo Abdou yee mais nag il faut il faut xam naa ne gars yi am lu ñu wax mais il faut njaase gi wax bu waxee rek dafa mel ni ñëpp wax nañu tu dëgg waaw xam nga ñu ngi invité ñëpp la wit xam nga comme moom ni nga ko waxee rek surtout nekkatul pour maanaam pour ay mbëru fii wala fii mbëru Sénégal la yàlla moo ko def xam di sàkku ñaan na xam nga di wax na ñëpp teel a ñëw sangu ba set sollu set xam ñëw ñu toog bége ba mu neex waaw jiili jërë jiili jërë waaw moom dafa dégg moom mu ngi programme tamit lu bees tax xam nga di woo Baye Fall yëpp si yar ak teggin ak dal xama nga si te bu bees tax lépp lu bees waaw ndax Sénégal moo ko namm du sax nekkul làmb kese de mhm. Sénégal moo ko namm gisoo ñëw na rek taan bi gisoo na mu commencé mel waaw borom bi la nag xam nga waaw bëgg nañ ñëpp waaw. Talla Ndiaye kon noonu la demee Siteu waa léegi kon ñu joxoon rendez-vous le septembre incha allah stade Mbao. jërëjëf maa ngi maa ngi woo ñëpp maa ngi woo ñëpp di wax ne yi noom affaire bi na ñëpp ñëw na ñëpp sangu ba set yaa ngi dégg foofu jàmm rek moo fa am sécurité bi doy na. lépp doy na waaw may saa ngi foofu meru mbaaw bi nag meru mbaaw bi moo ñun moo ñu yombalal lépp Obama Obama moom amuñu fayam quoi yee nekk na maire boo xamante ne mais commune yëpp ñoo ngi leen di woo maire commune yëpp ñoo ngi leen di woo te aussi tamit bëgg nañ képp koo xamante ne combat bi combat bi combat bi day jàll perpétuité fii yee waaw bëgg nañ ñëpp seetaan ko képp koo xamante ne rek xam nga expliqué yee yàlla def na yow yaa ngi foofu nga am na ñoo xam ne nekk foofu ay sénégalais yi nekk foofu yu bari yoo xam ne yëpp dañuy jéem a teew pour jàppale ma ñi ma ñi nga xam ne mënuñu ñëw ñoo ngi dugg si perpétuité bi jënd comprendre nga waaw bëgg nañ tamit ñëpp dugg ci yee ndax ñun amuñu lu dul fii Sénégal amuñu lu dul suñu gox amuñu lu dul suñu réew te balaa nga xam ne ñun Sénégal lañ dëkk nga génn dëkk bi bi la laajee doo wax fenn ngi fi ay jàmm gën nga dëkk wala fii de da nga naan Afrique laa dëkk si Sénégal kon tawféex yee Matar Ba waaw Matar Ba nag dama bëgg nga jox ma drapeau Sénégal ma sàngoo loolu rek laa soxla. non loolu dala koy defal monsieur le ministre. maam Serap Fall mu leen sama nijaay la sama tonton la maa ngi koy wax ne sama open press même bu mu nee ñëw bu ko jotam maye invité naa ko. mooy sa invité d'honneur xanaa kon. mooy sama invité d'honneur. kon monsieur le ministre monsieur Matar. maire maire Mbaaw bi ma jox stade bi. aboma ñoom ñaar ñooy sama invité d'honneur. kon Ila Mbaw bu gisee kontaan naa bu ma ko gisul kontaan naa. mais na yàlla na ñëw waay. amiin waay. kontaan ci yow. bëgg na leen yéen tamit. mais kaala gi doo ma ko jox xanaa. kaala gi dafa am ay affaire bu ndaw bu ci nekk. Ah, moom laa bëgg di. waaw mais nag moo tax mënu ma la ko jox. Abakar waaye ma eh, kaala gi kon bàyyi xanaa mën naa ci laal nii waaw waaw taala taala jëlal lii ziar ci kaala gi <laughs>